waxal. foncier bi avec l'arrêt des aussi ci littoral bi li ma li ma waxoon keroog ba ma dajeeg ministre de de agriculture lay wax. Hmm. dama ko ne am nga yéene bu baax ci dëkk bi mais il faut nga am benn euh, aide boo xam dafay jóge ci responsabilité état pour nga sa liggéey mën a yomb mi ne ma ban la ma ne ko mooy il faut que l' état prenne ses responsabilités mu assumer ce qu'on appelle sa réserve foncière hmm. maanaam état xayma lan moo moom hmm. sénégalais yi ak lan la moom moom. loolu tànk amul da ngay romb àll bi mu wéet nga foog ne kenn moomu ko loolu neex nga si def. Mm-hmm. bis boo indee say machine da liggéey villageois yi génn taxaw attaqué la. te loolu moo bloqué la plupart des ministres de l' agriculture moo bloqué la plupart des projets agricoles. Mm-hmm. beneen bi foncier bi il faut ñu revoir les lois sur le foncier benn fi may njëkkee mooy étranger amul droit acquérir foncier ci Sénégal. Mm. pourquoi parce que dëkk. gan d'ailleurs yow dafa dafa mel ne nag étranger yi naroo leen a may lu bari ci réew mi ah. bu dee étranger bi mënul liggéey ci kaw sénégalais bi mënul am foncier ci kaw sénégalais bi. non waxuma étranger. Ah. waxuma étranger mënul liggéey ci kaw sénégalais bi. Hmm. suuf moom moom soo étranger hmm. étranger mën na liggéey biir Sénégal. ci kaw mais effectivement du liggéey ci kaw permis de travail. Hmm, xaaral rek mu am yoon ak këyit bi nga xam ne su liggéeyee benn pàcc bi da ko fiy tuur benn. loolu dina tax. ñun ñëpp tolloo doole dina tax maanaam salaire tamit normal. mais fi may jëm ci suuf si mooy. étranger. amul droit am suuf fii étranger amul droit am titre foncier au Sénégal li may wax je le dis et je ku ko bañ nag yow la concerne mais dama ne la gan du tabax <laughs> dégg lu ma expliqué rek. Mhm. gan du tabax. mën nga am droit d'occupation. Mhm. mën nga jël benn suuf boo xam maanaam da nga ko jël pour benn temps loolu mën na nekk loi yi ñu ngi fi et c'est prévu mais étranger amul droit am titre foncier te maa ngi gis jeunesse euh, diaspora bi ñu bëri des étrangers yi jënd suuf Sénégal. Mhm. oui dégg nañu olof bu wax. nañ ko bàyyi su ko président Jomo Diomaye Faye deful nationalité nañ ñoo def ko. Hmm. bépp étranger bu fiy forcé di jënd suuf dinañ jël sa suuf traduire titre foncier bi en droit d'occupation incha allah te yomb na yaay xam ne après da ngay jaay. wala lañ ciy dëkk noonu est nekkul nekkul aussi ci nga xamante ne ñoom ñoo koy jaay. bàyyi ma eggali. Hmm. ñu koy jaay. Hmm. responsabilité bi état la. gis nga dëkk c'est pas. ñi koy ñi koy ñi ci ne ay ndaw état lañ a a les domaines. waaw xaama jëm rek su ma nee mm. état mooy manaam mm. bopp bi. Mm. kilifa day jëmmal këram. président. day xam li mu am at li mu fonk. xam nga fii ñëpp ñu ngi toog di wax lu leen neex di def lu leen neex di jëfe lu leen neexee parce que président la neex. suuf pour gis nga politiciens yi ngay gis nii. ñu am alal nga dégg ñu ne diw am na kër France am na kër kii c'est vrai am nañ kër de mais du titre foncier de droit d'occupation ne la lu ñuy renouveler la mais nekkul loo xam dañ ko moom xanaa ñu am nationalité peut-être mais bu dee maanaam jënd ko amul léegi nga jóge ci yow nga ñëw jël suuf si étranger yi jël ko. def si lu leen neex. Sénégal bu njëkkoon ok dañ doon sax ne étranger yi jën nañ léegi ñoom ñoo lay jaay fii Sénégal fii étranger ñoo lay jaay. soo demee Paris mën naa la wane ay pas maliens yoo xam ne seen liggéey lenn kese la à la retraite jaay suuf biir Sénégal. Hmm. waaw gis nga gis nga li nga li li gars yi génne ci mbuurkat bi nii ay deux cent hectares temps parcelle politiciens yi ko nekk yu ko yu ko ay contact diaspora lañ koy jox ñooñ di leen ko jaayal c'est ça la vérité xam nga ne xam nga ne deux cent terrain diw mënu ci dëkk benn nit mënu ci dëkk dañuy jël kayit yi defar ko ba mu normal ñu dem bitim réew. jox ko ay malien jox ko ay mauritanien jox ko ay guinéen ñu koy jaay. waaw hmm. ah, et c'est ça la vérité léegi yow loolu sa génération doom yi ñëw ak sa yi ñoom suñu ñëwee ban suuf la ñuy si dëkk bi. Hmm. ñoom ñooy pousser jeunesse sénégalaise bi ñoom ñooy pousser société sénégalaise bi mu am maanaam benn regard ci étranger yi parce que lu tax. parce que dañoo nanguwul sécuriser intérêt doomu réew mi. Mm-hmm. mais Tahirou li nga wax nii lool la loolu la président Bassirou Diomaye Faye nekk di def dégg nga li mu wax non seulement arrêté na les travaux ci littoral bi mais dem na ba mburkaat ne suuf si dañ ko nangu delloo ko ñu ko moom littoral bi je t'explique littoral bi moom dama lay expliquer faire mm-hmm. de lagon mm-hmm. ba cat ba dañ ko war a raser waa ah bon oui tout pourquoi pourquoi c'est la vérité. lagon yi fa nekk yëpp ak kër yi. lagon. Hmm. kër yëpp lagon. Hmm. lan ma waral lagon nekk nekkul oto bu ñu nekkul hôtel bu ñu tabax ci ci ci ci ci ci ciment. Hmm. waaw c'est en bois. c'est en bois poutré. ci benn partie. pourquoi ak en matériaux de bateau lañ ko tabaxee lu tax. parce que jamono bañ koy tabax fii en soixante quinze dañoo soxloon benn hôtel boo xam ne dañ ko soxloon rapidement gars yi monter ko. te bañ koy monter à l'époque l'autorité leur avait dit quoi que amuñu droit tabax ci ndox bi. ñu ne ko tubaab yi ne ko dañ koy monter saa yu mën nañu ko démonter. lagon loo ko waral ba léegi nii. ah oui dañuy nañu nañu xoolaat histoire. Hmm. oui c'est la vérité. ah mais lu mais lu gars yi di xaar. xaaral ma la. Hmm. moo fa njëkk. Hmm. après ñu commencé doxal. ñëw. indi ay ay teeru bi ay Magic Land et tout tout soit doo loolu yëpp. amul droit nekk fa tout doit être rasé man maa la ko wax Radisson doit être rasé Waterfront doit être rasé euh, nu mu tuddati Sea Plaza doit être rasé gis nga dëkk kaay ma xamal la géej. teeru bi géej. bi azalaay yi tout doit être rasé je le dis je l'assume gis nga at kër yu fa nekk yëpp. gis nga dëkk géej ñëpp ko bokk. c'est la loi universelle qui le dit dama mës a dem plage Ngor man ak sam benn couple tamit dañ fa gëjoon quoi parce que ba ñu gën a nekk xale ñu fa doon dem temps yi ñuy jógee voyage ñu dem fa ñu dugg fa ba ñuy dugg booy lébu yi toog nañu 300 moo leen fi dugal. et ça nous a ça nous a fait sama waa ji jéem a kaas na ma mais lu tax parce que que c'était pas prévu. Mm-hmm. man si. yéen ngi fay 5000 francs pour naan bisaab jano géeju Radisson bi at si plaza et tout booy fii 300 300 kañ moo moo gën a yomb lépp. lii manal manal leen lii mooy la preuve que ne géej ñëpp a ko bokk c'est ça la vérité. léegi nag soo bëggee nag jël géej gi nga fàtt ko dakaar gën a tàng amatul aération ngay entretenir. des moustiques hors saison bu lay jox dengue parce que la brise de mer bi nga xam ne moo leen mën a rey duggatul ci dëkk bi. Mm. parce que même sur le côté environnement. Mm. <laughs> daf ñu lor. d' mais tey li wax ni non xam nga dañu dégg ku mel ne euh, Kandji le la république ne li xew ci littoral bi c' est mille fois rien par rapport ak li am ci àll bi. ma ne la Demba Kandji ma ne la loolu mm. dëgg la mais dañu ne littoral bi man sama avis laa jox littoral bi. tout doit être rasé de ñu def ay escalier def ay pont télescopique. mu nekk maanaam benn ligne. benn corniche touristique boo xam ne ku fa nekk mën na fa ñëw féexlu mën nga fa def loo neex et tout amul problème. xam ne dañoo am ay këyit nag yow tamit nag. <laughs> kan moo kan kan kan moo rendre kan moo rendre habitable euh, la corniche. ah corniche ban moment lañ ko. est fa lépp aussi non xaaral ma expliqué la ban moment man yoon laay wax man waxuma yërmande waxuma compréhension. non man yoon laay wax yoon laay wax ko bañ ba dama ne la yoon ay këyit yoon moo la ne yoon moo la ne da nga koy raser sans indemnité. Hmm. gis nga corniche bi à l'époque ci yoroon le patrimoine bati bañ ko waxee daf leen ne fii kenn mënu fee tabax parce que tôt ou tard un président va venir tout dégager ñu dëgër bopp. bëgg fa domaine maritime déglu ma ñu dëgër bopp jël zone bi kooku yëkkati nañ 600 mètres carrés jox ko ko mu bañ mi ne leen du ma ko jël parce que tôt ou tard ça va être rasé. Hmm. man li may xam naa ko. est-ce que est-ce que dañu war a raser la corniche et je dis. <laughs> est que yaa ngi xaaral le président Bassirou Diomaye Faye mu dem ci jusqu'au bout. su ko deful ñun national su ñëwee def ko incha allah. Hmm. waaw mais dëkk bi moom dinañ corniche bi dañ ko raser dina féex. géej gi ñëpp a ko bokk. Hmm. su tàngee brise bi ñëpp la war a fekk ci biir Dakar avenue Bourguiba jaar Castor jaar Dieuppeul du Grand Yoff. voilà comme ko defee bu ñu ko da nga dox da nga dox da nga dox Bourguiba ngay dox à contre-vent. Hmm. mais léegi mënatoo ko am parce que jël nañ lépp tabax ko c'est pas normal. mais li la élage ñu fa tabax xam nañ ne du yoon. li la élage wax ki fa ki fa ki fa ñëw taxaw ak ay kayitam kooku noo ko def. ma ne la kayit yoo xamante ne yow sa administration. moo ko jox nit nit nit moo ko def. Hmm. ci li ko neex. kañ lañ commencé tabax corniche bi en 2004. 2004 c'était hmm. Wade et Idrissa Seck. waaw hmm. ah, léegi nañ xool xam nañ lu bëri fii ci dëkk bi de. xam nañ tur yi xam nañ ku ko def ay famille famille sëw yi ñoo ci mujjee ñëw mais corniche bi dañ ko war a raser incha allah. d'accord. jërëjëf Tahirou euh, El Hadj bu fekkee ah, amuloo ay laaj ñu gërëm suñu invité sant ko bu baax. Euh, président mais mais gis nañu gis na balaa balaa muy dem. Hmm. ñu gis euh, sorti wu communiqué bu Pastef bu mujj bi nga xam ni. Hmm. président Ousmane Sonko xam ne am nañu ko invité. te ah. ñu ci gënee bëree baree bari yàlla dafa dogal ne ba ñuy jël nguur coup d'état moom moo fa amoon. Hmm. France aussi gis nañ ne le principal opposant peut-être bu bu boo génnee Marine Le Pen. nga indi Mélenchon léegi kooku itam gis nga le 14 normal